ko ak anam goo xam ne dañu koy génnee mu ñaaw lool bi yoon nag Sénégal duggati ci guuta guuta goo xam ne li ko waral mooy mbiri Adji Sarr ak Ousmane Sonko ne ay fan a ngi nii ay oto ñu leen di taal di jëfandikoo li nga xam ne mooy cocktail molotov eh, fépp daanaka ci ndakaaru mu bokk ci oto ñoo xam ne dañoo far ci nguur gi eh, ba ci sax kër ñi nga xam ne faruñu ci nguur gi ak yenn banqaas yoo xam ne sénégale yi rek ñoom ñoo ciy ñàkk mi ngoog day faatu xeetu violence yi nga xam ne daf ñoo delloo ci taarix muy histoire politique bu Sénégal bu dee sax léegi la yàq-yàq yu gën a bëri nit ñi faatu itam lim gi foo ko takk weesu na ko. waaw loolu de am na Mohamed mais dafa fekk ne jamono bi dafa am information dafa gaaw flux de l' information ni muy demee bokkul ak bu njëkk ba c' est vrai que ni ko Fatou Abdou retracé dans les faits violence moom yàgg na rawatina ci seen politique bi mais amaana tey ni muy gaawee siiw demeewuloon noonu ci bu njëkk ba ndax fii lakk bâche sax am na fi ba ñuy ba ñu doon def meeting ci partie socialiste fële ca Thiès ñu fekk leen lakk bâche ba donc am na yenn yoo xamante ne jot na fee am mais amaana tey jii technologie yi ni mu demee ak phénomène télé ci poche moo waral mu am empleur mais loolu du lu bees fii amaana nag fi mu toll nii li ciy bees mooy wàllu cocktail molotov yi loolu moom du suñu culture loolu mosu fee am loolu moom lu ñu indi la bokkul ak li ñu daan tàmm di gis moo waral ñuy taal ay kër di taal ay oto yooyu noonu te jàpp naa ne loolu moonte violence la violence bi ci làmmiñ ñi la njëkkee muy violence verbale tey ji mu doon une violence physique loolee nag dañ koo seetaan muy rogalaat ba tey jii ñuy gis conséquences yi lu mu ci mën a doon war nañoo indi une riposte adéquate parce que tam fi mu toll nii personne en sécurité yow ak man ndax coowal politique bi léegi ci ay menaces rek lay tàbbi te menaces yooyu noonu mën nañ ko def à exécution moo waral ñuy dem ci kër diw di joxe adresse diw di taal donc laaj na vraiment ñi nga xam ne ñoo yor gi ñu jël les moyens remodeler ko ak li nga xam ne moo am ci jamono ji ak phénomène télé ci poche ngir mën a prévenir balaa ñuy lakk ci kër ñoom it ñu jiitu fa ñi nga xam ne ñooy defkatu ñaawteef yooyu ba duñ mën a lor askan ni nga ko waxee Fatab du ci nataal gi violence ci wàllu politique yàgg na fi en tout cas ci même réew du Sénégal waaye euh, li fës mooy nit yi ci faatu te mu bari lool. waaw parce que rappelé nañu déjà Oumar Blondin Diop euh, sous Senghor ki nga xam ne mooy également maître Babacar Seye su euh, Abdou Diouf parce que ci élection présidentielle la ñu nekkoon 1993 entre autres yoo xamante ne Demba Diop ñàkk nañ seen bakkan ay violence yoo xam ne politique wala rivalité politique yeggoon na ba violence indi ñooñu ñàkk seen bakkan rivalité politique boobu aujourd'hui moom la ñu gis Sénégal mu jur violence yoo xam ne mën nañu ne amoon na sax accalmie ndax at yi yëpp amul woon waaye gis nañu ne euh, bi ñu paree ci événement yi nga xam ne moom moo juboon élection présidentielle 2012 Sénégal ah boobu ba tey daanaka daf mel nekkuñu ci réppi saa su ne euh, da nga koy craindre wala saa su ne mu dal ci sa kaw euh, li nday fàttu wax na daf ci am yàlla phénomène des réseaux sociaux nga xam ne aujourd'hui dafay gën a yokk day gën a enflammé euh, tout le monde est au cœur de l'information au même moment li nga xam ne mooy presse traditionnelle bi sax daanaka moom dina mën a filtrer dina mën a segg ba du génnee lépp pour joxe ko mais bu dee réseaux sociaux yi doo filtrer lépp ngay génne lépp ngay joxe moment bi nga xam ne ci la am et loolu euh, dafay dem ba li nga xamante ne psychologie euh, violence bi dafay psychologie des foules dafay dafay dem kenn bu yëgee ne fee am na jëye kee dem fee mu amaat jëye mu amaat jëye ñuy dund violence boo xam ne aujourd'hui Sénégal naam xëy na yàgg na ci sunu taarix te Sénégal dañ naan dëkku jàmm la dëkku teranga la li ko waral mooy on n'a jamais eu de coup d'état on n'a jamais connu de coup d'état et loolu chance la bu Sénégal am ñu préserver loolu préserver également suñuy acquis démocratique ak ak yelleefu doomu aadama kenn du ko nasaxal gis nga quand il y a pas de justice il pas de paix il faut ñu toog ci dëgg ñi far ak ñi farul kenn ku ci nekk tegu ci dëgg kenn ku ci nekk ak am ak fam nga jox ko ko ñu am dëkk boo xam ne au moins dina dund stabilité kenn ku ci nekk mën ci gis boppam Mouhamed mi ngoo ko Fatabdou ndax li leen mën nañ ko boole ci xeetu violence muy attaque bi ñu nemmeeku ci cortège u Bougane Gueye euh, ca euh, Kaffrine en tout cas Ousmane Sonko ni ki démb ba muy def live doon dikkaat situation réew mi ak li ko concerné daan lay ñaawlu bu baax lu jëm ci attaque boobee ñu euh, daal di nemmeeku ci cortège u Bougane Gueye ca Kaffrine te ay militants ñu ne ñu bokk ci jëwriñ ji di Abdoulaye yi Seydou Sow def ko euh, ñu teelu ko ci extrait live am boobu. fës ci ñu jàkkaarloog moom. jamono ji ñuy wax nii. violence bu am ci senegal ci ñoom la jógee. maa ngi dégg démb ñu ne président Bougane Gueye karawaanam attaqué nañ ko Kaffrine te nee nañu lañu ñu njort mooy ka fa nekk maire moo ko moo ko attaqué loolu ñu teg ko fan te kenn du ci wax ci réew mi te kooku la veille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 mi ngook ataagu cortège yu président Bougane nag euh, ca euh, Koungheul moom am na yeneen ci ay militants yu mouvement gëm sa bopp yu ci yëy euh, yàbb yi soxal na délégation fédérale bu gëm sa bopp nekk ca département bu Koungheul kenn ci seeni ay responsable yëkkati na ay kaddu ñu teewlu ko tey dañoo daje woon fii am li nga xamante dañ koy ñaawlu mais li nga xam ne daf nañ ko démb président Bougane ba mu demee Kaffrine waroon fa def benn tournée ci trois communes ci loolu nag ñu fekk ko station sànni ko ay xeer ay ndaw daf ko te ndaw ñooñu nag ñu jàpp ne ci nguur gi leen bokk loolu nag la ñuy ñaawlu ñun ñi nga xam ne tey ñoo nekk ci département Koungheul di wax ne réew mi ñu ñëpp ñoo ko moom ku ci nekk am nga droit dem seeti sey militant ku ci nekk am nga droit dem seeti sey njaboot mais bu fekkee ne nag ku jóg pour seeti say njaboot te bokkoo ci ñoom ñu sànni xeer wala ñu baare la wala ñu kale la kooku jàpp nañ ñun waru mën a demee noonu te bis ni tey ñun ñi nga xamante ni tey ñoo nekk gëm sa bopp nekk ci département Koungheul wala nekk ci Sénégal dinañ ko jëflante ak ñoom parce que ñoom ñun amee ay leader ñun noonu leen amee ay leader tey mënoon nañ ko toppalante war ne mën ko faylante ak ñoom seen leader bu ñëwee suñ commune wala suñ département ñu sànni leen ay xeer wala topp leen bundu xatal leen waaye nag Sénégal loolu bis tey nag ñu ngi leen di mu gën a gaawee. mi ngoog Ndeye Fatou jàngat li déjà ci kàddu Ousmane son mi ñaawlu cortège bu Bougane bi ñu attaqué. waa moo tax euh, dañ ko war a moytu ma jël kàddu yi Mame Mbaye Ndiaye fii dëkkab doore fa yoo koy tas kon yooyu jarul commencé ndax te jii bu fekkee ne kenn bu jógee pour dox wàllam ci politique bi nga ne du fa jox doxee loolu mhm. nga yee fitna sa digganteeg moom moom it am na ay ñooñ yoo xam ne mën nañu fayu surtout nag bu fekkee dafa jóge ci autorité étatique loolu moom vraiment nekkul lu ñuy mën a rafetlu te it baaxul sax si ñoom ñi nga xamante ne ñoo ñuy jiite ndax bu dee ñoom ñooy semer violence wala terreur buñ leen ci fekk see kaw bu amee ñoom lañuy ñuy indexé te li fi bëgg a am nag ci wàllu politique moom dañ ko war a stoppé ndax dañu jëm ci élection présidentielle nu mu gën a jegesee tension yi di gën a monter leen di gën a yéeg ils ont intérêt ces acteurs politiques à ce que jàmm am parce que loi du talion maanaam œil pour œil dans pour dent loolu ci jungle ba la am mais du fii ci dundum société bi nga xamante ne dañu nekk ci état de droit nekk ci société civilisée laajul violence mbir mi débat d'idée la ku ci nekk ci classe politique bi bu fekkee am nga ay proposition teg ko ci table bi askan wi ñoom ñooy jugé waaye mbiru xeex ak xaxatloo wala di tour deret wala di gaañante dañ leen ciy xeeb kenn leen ci naw te askan bi ñu jiite meluñu noonu pourquoi ñoom ñi nekk ci langue politique bi ñu bëgg jël violence violence boobu di ko jiital loolu c'est l'arme de faibles donc ñoom ñëpp war nañ ci def attention te dañuy condamner ce qui s'est passé à Kaffrine et espérons loolu du prospérer ci yeneen euh, localité est-ce que mbir mi mënuñoo yóbbu ci ab kaaw bu dañoo songu sa leader sa ay ñooñ fayu fan la nu mën a yóbbu parce que xam nga dañu dépassé adversité dañu dépassé aujourd'hui euh, dañu raté loo xamante ne moom la ñuy xaar les politiques muy la confrontation des idées nga am sa xalaat ma am sama xalaat ma am sama sañ-sañ jóge Dakar dem ba mi te kenn du ma inquiété parce que je suis sénégalais et fépp foo xam ne nekk na Sénégal dama jël la sax Sénégal mais CEDEAO sax dañ lay wax laa liberté des biens et des personnes ci espace CEDEAO waxuma laa nag réew nga xam ne yaa fi dëkk bokk fi war a am sañ-sañ xëy dem xombal wala nga xëy dem Përi Ndiaye wala nga xëy dem Ndar te kenn du la inquiété un politique dem gis askanam kenn mënu ko ko tere rawatina nga déclarer sa candidature comme ni ko Bougane Gueye defee dem pour saafantoo ak ay nitam parce que mënul toog tout simplement bàyyi ba ñu ne ubbi nañu élection yi pour que nga door a dem ci diir boobu tu ne pas faire le tour du Sénégal maintenant ban leader nga fay fekk leader boobu moom li ñuy wax naan il faut que ñiy def politique ñu am esprit de gentleman c'est-à-dire que yow c'est pas parce que ñun ñaar ñoo bëggandoo lii que dañu war